baat waajal ilaahi maskani Tuubaa baat mislasmi abijaahi xayri man nabaat wasalliyan alayhi abdal salaat waalihi wa sahbihi sawi silaat wa kullu man qaddamani aw saara fanajjini waxfid lahu aw saara wa kullu man aabani aw maala بالله فارسخ مدا ومارا وكل من ستمني أولاما فابلغ توبة واستسلاما وكل من أساس النوبيا فليقل قلبه يا ربيا فلتكفني أسى جميع العالمين ولتقضي مساء يا رب العالمين وجل بنائي بنا أوافيا يجرني إلى خيول قلوب سافيان واجعل بنائي بناء علمي وامل بسنة وعلمي واجعل بنائي بناء الاعتداء والتكفني كيد كل سيتداء والتكفني دراسة سيتاني وغير به الباخن في الأوتان ولتكفر عني كل شخص لم يريد وجاك فاسلم سريعا يزيد والتزفا جملة ما يفسدان يدي وعن داري سريعا نيسوان ولتدخل المسلم في يدي وفي داري وثابتا حب الهادي وفي وآل من وآل من ولتكفني جملة ما يعين ومسكني سل من الفجار وامن ملال بما من جاري وأجل ربي مننا المعجلة جالبة لمننا المعجلة asalaamaaleykum wa rahmatulah mbokk jullit yi mbokk taalibe yi ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar ci ndigalul Serigne Mountakha Mbacké xalifa général de Mouride mi nga xam ne nii moom lépp loo fi xam ne nii moo fi yëngu mooma te muy jëwriñu Touba kanam nu nekk fii nag ci Daaru Xuddoos di tàmbali liggéey bi nga xam ne nii moo di liggéeyu defar tuyau yi nga xam ne nii moo jëm ci assainissement bi ngir ndox dootul taa ci dëkk bi xam ngeen ne Touba ca kanam moom ba mu tàmbalee ba léegi lii mooy sababam defe naa ne lam njëkk a def ci inondation la woon te moo di ci li nga xam ne nii mooy fële ca Ndaamaatu ca jumaay sëñ Saliou jë loolu la ñu tàmbalee woon boobaak léegi jóguñu ci di liggéey loolu ba léegi nag suñu jaar fépp jarut ma ciy ñëwaat defe naa ne mbokk taalibe yi ci bari xam nañu ko waaye ren nag moom priorité numéro un bi di assainissement wu Touba maanaam fexe ba mbedd yi leer nañ balaa màggal incha allah. waa liggéey bi fii tey lañ ko tàmbali moom waaye nag fekk na ñaar dafa bokk ci ñaar fukki sites yi nga xam ne nii. moom la Touba ca kanam fas yéenee defar ba nit ñu mën cee jaar boo seetee ba ci jëkk moo di fële ca ñu doon defee lancement bi ca gaaw bële weesu di tollook le huit nga xam ne sëñ Mountakha moo joxe ndigal ne nañ tàmbulee foofu mooy ci yoonu Mbàkke yu ci sel bi waaye yoonu Daaru Rahman nag boo demee ca 30 bële ca kër sëñ ñaan jooba ak mbedd yu ci bëree bëri tàmbali nañ ko ba liggéey ba sori na lool ba latir sax ña ngi ko fay teg. Baye Fall dañ liggéey bi. xam nga ku ne murit ku ne ba ku ne murit ne Baye Fall Baye Fall yeeg yi ñëpp fi nekk waaye jëriñu Baye Fall yi nag muy sëñ Moussa Fall Mbar ak sëñ sëñ sëñ sëñ Fallum sëñ Modou Aminta dañoo jàpp tey ne ñoom dañuy ñëw ngir tàmbali nu di leen siyaare ci loolu ñëw tàmbali liggéey bi fii ñu xool nag lii nag mooy liggéey bi nga xam ne mooy liggéeyu ay ca murit bi dëgg moo tax ñu ñëw fi tàmbalee fi tey lii ñu tàmbali nag xam naa ne lii de moom ba ba ba fële du du du yàgg mu yàgg waaye nag liggéey bi day continuer dañoo fas yéene balaa màggal gi dañoo fas yéene balaa màggal gi di ñëw yoon yu mag yëpp wu mel ni wii nii ak wu mën doon fu mu mën di nekk mu am jaarukaay ba nit ñi mën a dem ci jumaa ci siyaare am nuñ ko bëgg وراجنا بجاي من دغوى ولتكفنا كسبا ولهوا ولتكفنا ما لا يغني بك ودابا أخلنا يا مغني يا الله مغفرتك المؤمرة عوسا من ذنوب ياس مولا يا بر رحمتك أرجى عندنا من أمل نصيبه فاغفر لنا ولجميع المسلمين أجمعين والمسلمات كل حين كل عين ولا تواقفنا بسوء الأدب وبالتجرع وكسر اللعب فإننا وإن تجرنا فلا نرجو سواك كن لنا تفضلا ولا تواخذنا بكسرة الفضول في زائر وباطنه وبالخبول وكن معيسنا من الوباء وكل ناس من السماء wa kulli maa yaduuru fil ardi wa maa baynahumaa yakuunu yaa rabba samaa. واجعل قلوبنا مع الجوارح للبر والتقوى بجاه ناصح وصل الأزكى صلاة دافعة هنا وباء من جراد مانع هلي والهالي بعبد السلام وزابي ومسكني ويا سلام وسك مسيح وسبني عما يصف في دارين عني عما وتيرا قلبي وسبني حياة وايني في طاعة يا رب يا